ginnaaw boo xamee ne yëkkati woon nañu ay kàddu ajjuma passé ci madinatu salaam ca kàddu yooyu jëmmi yàlla rek taxoon ñu yëkkati ko ak seere dëgg ak defar kàddu yooyu nag dafa mel ne bi mu jógee lu ëpp ci murit yi dégg naa ci seeni kàddu doonte séentu woon naa ne kàddu yu mel na dañuy copp waaye man duma tontante ndax fu ma mën a jëm rek liggéeyal sëñ Tuubaa rek mooy li ma ñor comme nag yàlla dogal na murit gi ci laa bokk te duma ko génn te yëg naa ne am na murit yoo xam ne neexu leen mbooleem koo xam ne kàddu googu neexu la maa ngi la koy jéggalu ngir jëmmi yàlla te xam ne Fallou moom fu mu mën a jëm defaral sëñ Tuubaa rek ci lay xëy di ci gont doonte dégg na ci lu ne nag gis ci lu ne daj ci lu ne waaye nañ xam ne lu mu mën a doon rek sëñ tubaa jar na ko ak man jar na ko ak man kon nag képp koo xam ne am nga ci lu la ci déranger wala a xari la